asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah lundi 28 dañuy ñëw ak yéen ci likaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ne ki moo xam sunu lamb la record la wala muy fa nga xam ne moo di Equivox ak Leewtoo Lutte TV ak arène ba maanaam bépp yëg likaay boo xam ne tey yaa ngi yëngutu ci mbirum lamb daal fu ñu dellu siwaat wenn sànn la sànn wi maanaam mbër yi nga xam ne nii daje woon nanu samedi ji passé fa nga xam ne moo doon ca Almadi see kaca la leen fa dajale woon nag lenn bi nga xam a ubbi ngir nag ñoom compétition maanaam mën a jongante bëre parce que la ñu jàpp mooy maanaam fi mu nekk nii réew mi boo xoolee ñay jaay ñu ngay jaay ñu ne ca bureau ñu ngay liggéey ñay filma ngay filma ñay liggéey ca wax ngay wax maanaam daal ñépp ngi liggéey sauf ñoom mbër yi ñu jàpp ne nag mbir yi day niru wate taxas wet te loolu jàpp nañ ne du loo xam ne nii lu war a mën a nekk la moo tax daal ca seen njiital ka nga xam ne wala boog nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux ma leen jiite daal yooxu nañu ba seen baat la ñu jàpp daal état ba daal la gars yi interpellé ne nañ ko fi mu nekk nii daal li am ba des mooy saison bi moom ubbi ko la ñu a def Serigne Dia Bombardier may seen porte parole moom nee nag ñoom engagé wuñu fi maanaam naan dañuy xeex ak état déedéet nee loolu amul li ñuy laaj seen droit la nan leen ko jox maanaam ubbi leen saison bi ñu bëree ka nga xam ne nii tamit moom mooy Serigne Mbacke Ndiaye nekkoon fi ministre moom tamit ca jamono Abdoulaye Wade teewoon na ndaje mu ñëw jàppale si mbir la mu wax daal nee na leen saison bi moom mu gudd mu gàtt ubbi ko la ñu war a def Balla Gaye numéro 2 tamit ba tey mu nga foon moom tamit la mu wax daal nee na li ñu war a def mooy ubbi saison bi bu ko defee personnes ya ñu a respecté di ñëw jafe-jafe la ne te Gris ne mbir yi warta demee noonu ndax promoteur ya koy tëgg Gris daa jàpp ne dañ leen a war a dimbali jàppale leen maanaam teggi leen yenn sartu yu méttee métti ndax nag su dul ñoom la bëree am kon Gris Bordeaux jàpp ne lamb lamb ji moom yàgg naa ki jafe-jafe moo tax mu ne état bi kon ka ko jiite muy président Macky Sall daal gars yi nañ ko li nga war a def nag mooy ubbi xool bu baax a baax mbir naka lay demee ngar nga ngir nag nga mën a ba tey mbir moom nga xam ne ni daal ca la ñu ba xëy la mu xamle jàpp na ne nga xam ne ñoo di promoteurs yi moom maanaam ci altine tey altine tey jii moom des na leen dalal fa nga xam ne ñoom ñoo di ca CNC ba ngir ay waxtaan ngir lu jëm ci saison bi ab promoteur boo xam ne ba tey ci promoteurs yi la bokk di jàk sa moom la mu xëy di laaj daal ne na seen wàll lañ leen war a jox ci nar wi ndax nag ñu ngi dégg ñu ne développé nañ lu toll ci juróom benn milliard moo tax jàpp jàk sa daal jàpp na ne kon la muy laajte leen na la mbir yi moom na yaatu te tas maanaam waa jot ci la nga xam ne nii daal moom la ñu moom ànd lambi wik loo nag moom daa mel ni am na ñoo xam ne nii daal buñ ko tuddee itam daal gis-gis ya daa mel ni ab waroo am na ca nga bëggee dégg-dëgg du jànjee ko moom ma jiite président amateur yi la mu xam ne daal jàpp na ne moom li am bares moom yaakaar ne moom lii di làmb ji léegi dana ubbi Gaston Mbengue moom des promoteur jàpp na ne daal loo ci mën a dégg maanaam wik loo mën na nekk waaye nag la ca teg loolu daal mooy xekk nga xam ne nii moom moo di Gaston Mbengue ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb mel ni ki nag kere moom loo ci mën a dégg mbëri yëpp wuyu si woon nañu parce que wala ñu ca baree baree bari ñoom ñëpp daal ñëwoon nañu su amee ñu sant daal moot loo lay doon Lac de Guiers numéro 2 Siteu ak Tapha Tine waaye boo bëggee dégg dëgg daal ña ca des ña ëpp ci ñoom ñëpp ñëw nañu Khadim Gadiaga nag moom ma nga xam ne ni moom mooy seen président d'honneur moom moom daal maanaam li mu wax daal ne na da a sib subventionné la nga xam ne moo lamb ji moom Khadim yemu ca remercier na tamit ka nga xam ne moo di Boy ña ca la nga xam ne ni jëkk na koo def mu di ab acte ba tey jëm ci mbir yooya ñeneen ñoo xam ne nii remercier nañ leen maanaam kale ñi leen remercier nag moo di mbër yi muy Aziz Ndiaye mi nga xam ne nekkoon na fi promoteur ak xarit ba muy Elimane Lam ndax nag jàpp nañ ne maanaam c'est kaca bu ñu ca mënee jot ca saal booba ñoom mbër ya kenn ku dul Aziz Ndiaye nga xam ne nii moom moo di Elimane Lam moo tax daal ka nga xam ne nii wala boog ña nga xam ne nii ñoo di mbër ya ci kàddoog Balla gay sant nañ leen bu baax a baax ci jàppale googu nga xam ne nii jàppale nañ leen ko fa nga xam ne nii moo doon kera defe seen waxtaan woo buñ fa jógee ba tey dellu fa nga xam ne moom moo di ca record record itam daal ñëw na ci Balla Giri ak le B52 gaa ya daal ba tey rek ñu ngay interpellé ka nga xam ne moo di président bi jiite réew mi daal lañ ko xamal daal mooy kane daal lamb ji moom loo ci mën a dégg nañ ko ubbi wut ay solution ka nga xam ne nii wala boog ña nga xam ne nii nag ñoom ñoo di waa waay daa mel ni appel ba moom tardé wuñ ko mbëri géejawaay boo xoolee ñoom ñëpp kenn desul parce que daal ñëpp ñëpp ñëw nañu ca bés boobu nga xam ne ni ca la mbër ya woote woon mu mel ni que nag fi mu nekk ni Gris Bordeaux ba tey ci record la ay li ñu leen war du samay wax waxi Gris Bordeaux la mu mel ni que ba tey loola la xëy tey di ko wax mu mel ni que ba tey keneen koo xam ne ni moom ne daal moom ndaje ma da koo wuute moom moo di Modou Lo la ko waral nag record ne nañu Modou mu nga fa nga xam ne ni moo di ca Dubaï maanaam di passé ay vacances Sam le roi des arènes record a xëy ñëw wax nu lu mel bi ñeent fukkeeli édition bi ak ñaar daal boo bëggee dégg-dégg mënuñu koo amal la ko waral lenn dong la maanaam coronavirus ba moo fa jaar foofa ci réewum Niger la ba a xëy lool waaye dañuy dellu fa nga xam ne nii moom moo di ci sunu lamb maanaam fa nga xam ne moo di ca Gambie moom boo bëggee dégg-dégg léegi fédération ba nag am na njiit ka fa nekkoon di Serigne fay daal moom la ñu tabaat mu continuer di leen jiite ba tey kon nag yëg likaay bi xam nañu ne daal moom ba vote ya génnee daal la mu rawee ka ko toppoon bëri na trop moo tax ka nga xam ne nag moom la ñu doon xëttool daal la mu xam ne léegi ne nag fi mu nekk nii comme fal nañ bureau bu dees nañu ànd nag liggéey maanaam pour jéem a doxal lambi Gambia mel ni kan daal loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi nga xam ne ni dañuy wax ci wàllum làmba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu suivre ci Equivox TV wala téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci yéen di leen balu àq bu baax a baax a baax a baax waaw di leen ñaanal jàmm yéen ñépp ah fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay bëggee di leen ñaanal jàmm mucc gu ànd ak xéewal ah tey nag ñu ngi ci alterné tombeeg le 28 décembre bés bii nag buñ ko xalaatee suñu xel fi mu njëkk a dem tey maanaam mooy jëmm ju tedd la Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram te taaf ñu si barkeem ndax ku ne yaa ngi fàttaliku ne ne ci atum 2007 ah le 28 décembre ci la wuy ji woon boroomam boobaak tey tollu fi fukki at ak ñett maanaam ñu ñu ngi koy ñaanalaat yàlla mi nga xam ne nii ah moo ko fi indi maanaam yàlla na yàlla yokk ay leeram ca barsàq mook bépp néewu jullit bu nekk ci biir suuf si parce que Cheikh Salim moom ku ne xamu na ne yërmande kese la feesa woon waaw loolu moom defe naa ne kenn du ko jaale te defe naa ne liggéey na ci lislaam liggéey boo xam ne nii dootul fay ba ilaa yawmi diin te liggéey boobu ba tey ak njabootam a ngi koy continuer ñu ci ziar ku mel ni taawam ba di Serigne Cheikh Salim Mbacke di ko ñaanal yàlla moom tamit guddu fanak ak wér ndax fu Serigne Saliou tegoon tànkam rek teg na fa tànkam ba yokk ko sax yaakaar naa tey boo demee dëkk yi Serigne Saliou defaroon wala mu goroon leen wala mu kiwoon leen yépp defe naa ne boo fa duggee tey ah di nga xam ne loo ci mën a dégg moom la woykat ba waxoon rek doon sa baay doon sa baay da koo gën te sëñ Cheikh Saliou loolu la taxawee ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ak i yépp di ñaanal tamit la xalif général Serigne Mountakha Mbacké ah borom jàmm ji moom tamit yàlla na ko fi yàlla bàyyi di ko ñaan xalifa yépp waa di jaal tamit waa lew na waa Medina bàyyi ak waa lew na ñaseen parce que ku ne xam ne ne Seyda Mariama Niass defe naa ne ku nekk dégg na turam waaw ci Sénégal wala ci àddina bi te luñ ko déggee doom doomi Baye ñas kese de la ca yokk mooy maanaam alxuraan da nga xam ne moom la bëggoon tafoon ko ci boppam daan ko jàng di ko jàngale di ko xam ko di ko xamle kon defe naa ko tam bu dëddoo defe naa ne day baax ñu jaale ko képp koo xam ne taalibe Seex nga waaye jaal ko jullit yépp ndax bàyyi ñas seexal islam ñun ñëpp a ko bokk waaye nag comme li ñuy wax rek ah euh, euh, àddina moom moo tëdde noonu di ñaanal xalifa ba nga xam ne moom moo nekk lew na wala ak Medina Baye yëpp yàlla na fi yàlla yàggal xalifa yëpp comme ni ñu ko waxee waaye képp kuy taalibe Baye daal ñu ngi lay jaal ki nga xam ne ni moom mooy Seyda Mariama Niass rawatina ku mel ni El Hadj nekk ca Brésil ah di sama soppe ak ku ñuy wax grand laay di taalibe Baye Niass dëkk ca Saalum moom tamit maa ngi ko koy jaal bu baax a baax a baax ak fépp fu taalibe Baye nekk rek ak Abdoulaye Mbaye ca États-Unis moom tamit di taalibe Baye Niass di leen ko jaal di ko jaal képp kuy doomu aadama rawatina jullit yi tey nag bu ñu ñëwee ci yëglekaay yi maanaam wax bi benn la mbër yi ak seen ndaje bi nga xam ne amaloon nañ ko ci weekend bii ca Sekkatia ca Almadi ngir leen ubbi saison bi xool ay solution defe naa loolu moom wax nañ ci wax ci waxati ci gis nañ ah liñ ci rafetlu nag mooy ñoom mbër yi bokk nañ ci benn taabal toog waxtaan loolu moo lay wan ne ñoom ñoo bokk nday ñoo bokk baay su adversité bi jotee nag dana saf sap ñu bëree danañu xeex danañu defante lépp waaye bu jeexee jeex na comme na ko boo gisee Gris Bordeaux toog Balla Gaye ne ci côté am Bombardier toog ah ah xulle boobu image toog ngir défendre ay intérêt intérêt yi ñuy défendre nag ñoom du seen intérêt bopp déedéet mais intérêt commun la maanaam loo xam ne ñoom ñëpp dañ ko bokk ku ne war ci gis ndax mbëri bu ñu génnee wax promoteur bi da cee war a gis boppam képp ku yëngutu ci lamb gis ci boppam defe naa nag kon la may waxoon rek état du Sénégal raw na rawatina le président Macky Sall lii mbër yi di wax yaakaar nañ ne bàyyi nga ci xel ndax gis nañ depuis boobu ba tey sa ministre mu ngi jokkoo ak waa làmb ah di ministre des sports monsieur Matar Ba kon defe naa lii xalaat naa ne solution dina am li ñuy ñaan nag mooy yàlla na solution am parce que a am ñu tamit loo xam ne mu ngi fi xamoo kañ lay dem docteur yi ñu ngi def li leen war nit ñaa ngi moytu te affaire baa ngi fi toog kon dinañu ay solution comme na ko président waxee woon il faut ñu jéem a jàng nu ñuy dëkkeek feebar organisé ko loolu rek moo ci des mais mbëri daal man seen daje wax dëgg yàlla kontaan naa ci euh, di wax tamit kii di wax na kàddu gu am solo jëmale ko ci promoteurs yi promoteurs yi président war nga leen a gestu promoteur u yi parce que su dul ñoom làmb du am Sénégal te wax dëgg yàlla kuy fëgg ku jël ay millions jox ko mbër toog di xaar mu demee nii day metti te promoteurs yi ma waxoon rek ñoom ñëpp ay boromi métier lañ ku ci ne am na ci looy yëngutu yaa ngi dégg kon defe naa seen loolu la ñuy yëngutu bu ñu ci jëlaatee dugal ko ci làmb ngir am ñu ñu bëgg a épaulé dimbali leen defe naa dafay baax ñu gestu leen ma ciy nuyu seen président yi ku mel ni Pape Abdou Fall ak Dieye Sène képp ak kuréel yu ne ak bépp promoteur rawatina tamit promoteur u simple yi du leen fàtte parce que ñoom itam ci lañ bokk ay millions la ñuy génne rawatina ku mel ni Jax ñoom Doudou ñaan ñoom Ablaye Diop suñ production ñoom ñëpp ku ci ne da ngay développé ay layti ndox dañuy génn ay millions faata production yaxa jób yëkki ni manga ñoom ñëpp dañuy organiser lit simple defe naa ñun tamit nañ leen ci sóoraale parce que ci lamb ji lañ bokk te lit simple bokk na ci li gën a euh, waa askanu lamb gën a bëgg ndax la cay am ci ambiance ak bëree ak non dafa dafa neex amateur yi trop foofu tamit ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax loolu moo ñëw tey sunu lamb moo ñëw record waaye Aziz Ndiaye ak yi remercier nañ leen ci sas te bañ def maanaam see ku ne xam na na mu demee defe naa kon bu ñu fexee ba ñoom ñu jot ca saal booba ah loolu tamit defe naa remercier bi leen mbëri remercier ci jaara turu baal defe naa loolu jaadu na parce tamit ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi defe naa noonu la demee Aziz Ndiaye defe naa tey waa làmb duñ soxla ci moom dara muy të yaakaaruma ko te bu dee ci Elimane la aju Aziz ak Elimane moom samedi ak dimanche la bés du fa jaar loolu mooy li nga xam ne nii ku ne xam na tamit gis ngeen ci ne ak ka nga xam ne moom mooy Garga 2 remise de drapeau Alaaji Papa loolu tamit nekkoon foo xam ne vrai lu neexoon vraiment muy bés boo xam ne tamit la fa génn kere ci xam-xam am na solo trop ñuy ñaanal Alaaji Papa gudd fan ak wér ba ñu teewee drapeau boobu sargalam ak xaritam yépp di ko ñaanal ñëpp rawatina doomu Youssou Dieng di ko wax mention spéciale waaye waa tapis vert nag moom ah waaw ñoom daal 50 Amadou Diop 50 way wa rëy na waaye tapis lu ñu la way rek lu way wa neex neex defe naa ne tapis vert mel moo ko gën a tee neex kon loolu am na solo kon la ma leen ko waxee woon rek ci bàyyi xel tapis vert nañ fay dem ndax nag ñun képp kuy ñëw ci làmb di ñu jàppale ah du ñu mën a def loolu nag di la delloowaat sànniwaa ku la sànni nga sànni ko te tapis vert moo ñëw ànd ak Vox Arena jàppale ci li muy liggéey ba kera gis nga lañ defee waxtaan woowu kon ñu nuyuwaat tapis vert yëpp ba leen wax na la ma leen ko waxee ga sell na maanaam bu laajee tàng dana tàng te du lakke bu laajee sedd itam dana sedd te du yàqu te du yàq dara ci sa gémmiñ kon defe naa foofu di fa lekki moo gën te ña koy togg ay sénégalais pire lañu loo fa bëgg cere baasi sax kër dégg naa ko fa xulle kon nga xam ne waa tapis vert rek a pare waaw xulle boo ma joxoon numéro bi sax ma joxe numéro tapis vert gars yi téye ko parce que dafay baax waaw 33 842 0048 33 842 0048 loolu mooy numéro tapis vert nekk fii ci Mermoz ah yëpp waaye tamit ku ne xam ne ne weekend bi yàlla dafa dogaloon ma ñàkk li nga xam ne nii moom mooy sama ay e, way jur man naa ne parce que li tax mooy koo xam sama doom baay papa la ñu koy wax papa du sec ca ak yaay yàlla jël ko kera àjjuma may ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di ko jàll ay doomam yépp yaa rawatina ñoom taawam di seex sec ñoom ami yaa ngi dégg ñoom faat ñoom euh, ñoom ñëpp daal gan ñoom ñëpp maa ngi leen di jàll seen papa di suñu papa yàlla na ko yàlla xare aljana ak suma benn bàjjen bu ñu wax xadi ngom moom tamit ba tey dëkk ak yaay di ko jàll ay doomam papa mbay daawuda mbay ak ñoom sattu mbay ak ndeela yëpp di di leen jàll waa ak yaay yëpp di ñaan yàlla yërëm leen xare leen aljana doo xam ne loolu ah mook àddina ànd rek waaw parce que ñooñu ay mag ñu baax suñu ay kilifa lañu woon di ay mag yu baax yàlla na yàlla jéggal te xare leen aljana ak yaay nekk daal maa lay jàll baay bu du sek ak suma bàjjen Xadi ngoom yàlla na leen yàlla xare aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit doomam Ousmane Seck di homme de tenue maa ngi koy jàllal papaam bu baax a baax a baax a baax di ko jaal doomam yépp yépp bu ma limee dinaa juum ñoom képp ku nekk bokk ci njaboot gi daal maa ngi lay jàll góor gu nga xam ne ni moom mooy suñu papa Badou Seck ak suma bàjjen boobu di mère Xadi Ngom di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm